jërëjëfe borom Touba. Ahmadou Mbacké jërëjëf. jërëjëfe borom Touba. Ahmadou Mbacké jërëjëf. jërëjëf. jërëjëf. nan di jëmal cant gu rëy gi ñu la ëmbal. ngir yaanu del seeti nan di jëmal cantu gu gi ñu la ëmbal ngir may lu xel tejul Ahmadu Mbàkke jërëjëf yaa tànn saw gaay te asal tànnaale maam ya kenn yëgul def leen ni mbër yu kenn yëbul Ahmadu Mbàkke jërëjëf yaa tànn saw gaay te asal tànnaale maam ya kenn yëgul def leen ni mbër yu kenn yëbul Ahmadu Mbàkke jërëjëf jërëjëf war na leen jërëjëf war nanoo jërëjëf bun goree naan Ahmadu Mbàkke jërëjëf Ahmadu moo di tur waa Xaadim moo di jëwriñ ja ah. Mustafa yi sang la Ahmadu Mbàkke jërëjëf jërëjëf war na leen jërëjëf war nanoo jërëjëf bun goree naan Ahmadu Mbàkke jërëjëf jërëjëf war na leen war nanoo. jërëjëf buñ ko ree naan. Ahmadou Mbacké jërëjëf. Ahmadou moo di tur wa Xaadi moo di jëwriñ ja Moustapha di sang ba. Ahmadou Mbacké jërëjëf. Touba moo di kër ga Lamp Fall di buntam ba Moustapha di taaw ba. Ahmadou Mbacké jërëjëf. jërëjëf war na leen. jërëjëf war na noo. jërëjëf buñ ko dee. dindandoo leen yéen leen Ahmadou Mbacké leen yéen dindandoo leen yéen waxandoo leen Ahmadou jërëjëf yéen jugandoo leen yéen dindandoo leen yéen waxandoo leen Ahmadou Mbacké jërëjëf jaajëf janay dal na xumbu nay bal ndax moom lanu àndal Bamba lanu àndal ki faj aajo fu mën a jëm naan Bamba Ahmadu Mbàkke jërëjëf jërëjëf war na leen. jërëjëf war na noo. jërëjëf bun goree naan. Ahmadou Mbacké jërëjëf. muritoo maam Bamba la nu gëm mooy ki faj suñuy aajo. kun mën a jërëjëf. jërëjëf. jërëjëfe borom Njaaréem. sant leen borom Touba. Ahmadou Mbacké jërëjëf. jërëjëf borom Touba. Ahmadou Mbacké jërëjëf. sant seral sunu borom safar jërëjëf. sant dalal sunu borom safar jërëjëf. teg ci mooy seral suni yaram. borom safar jërëjëf. santu seral suni yaram. borom safar jërëjëf. santu koy borom safar jërëjëf. santu koy jërëjëf jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridine